mbokk yi Saint-Valentin ci weer bii la le la tey Afrique gi yëpp ñu ngi koy feetu rawat na Sénégal mooy feetu njaalokat yi Saint-Valentin li muy tekki boo ko bëggee gàttal ba abrégé ko ba nit ki dégg neel mooy feetu njaalokat yi parce que cosaanam ci loolu la boo saint mooy ko sell bu fekkee jigéen la sainte la ñuy wax sainte Vierge Marie Saint Paul sainte Marie S A I bu dee jigéen la terminaison bi nga yokk ci e sainte kii Valentin la tuddoon moo doon labbe bi gënoon a mag ci dëkk ba mu nekkoon ca tugal dañu ne ñoom du jegeen jigéen muy frères muy cardinaux muy pères yi muy yi ñu tuddee ay monseigneur ay nanga ay nangam moom labbe boobu nag di Saint-Valentin ndek bu jiite woon jàngu bi ba wàcc rek moom mu daal di yëg miir bi daal di ci félu ci ginnaaw benn jongoma mi ngi foofu mu dem di foofu la ba kooku ëmb ne élimaan bi moo ëmbuloo xale bi ci dëkk bi élimaanu église bi wala élimaanu cathédrale bi wala ki jiite diocèse bi moo ëmbloo ci dëkk bi mu ragal bés bu lii feeñee gàcce la pour moom torox na yàqule na nitu diinaam woneeku na ndekk li mu doon feeñal danañ xam ne kii naa feq la la mu doon feeñal ci jàngu ba ak li mu doon dund du benn booba jamonoom duñu nangu soldaar yu ndaw yi am jabar foog nga doon officier waaye boo doonee officier bu ndaw doo takk jabar ndax dañuy ragal boo demee guerre nga dee Euh, veuve yi bëri ci dëkk bi ak jirim yi orphelin yi bëri fi état bi du leen mën a yor mendicité am dëkk bi yàqu boo nekkee officier comme yow doo dem ci front bi wala boo ci demee du bëri ñooñ la ñuy may ñu takk jabar officier yi waaye sous-officier yi officier yu ndaw yi duñ takk jabar ay caporal ay caporal chef ay sergent ay sergent chef adjudant adjudant chef ñooñu duñu leen doon may ñu teel a takk jabar nañ bàyyi ba nekk ci officier ñu toog a takk jabar ngir booba geer dafa bari biir Europe te seen dee bu bëree ñoom soldats ñu bàyyi ay jabar ak seeni doom fii dëkk bi réglé ko du yomb moom ba mu xamee ne ëmbaloo na nit ci dëkk bi mu rewel tooloo militaire yi mu ne leen la 14 février bi kenn ku ne na nga seet jigéen bu la neex ci dëkk bi tey église may na la demal fanaani foofu waaw am na kilifa yoo xam ne lu ñu digle nit ñi def ndax li ngëm gi ak wóolute bi te def ma néeg baa ngi ni fees saal baa ngi ni fees teeb bu ma newoon ko xaqataay rek déwén fekk la fi ñëppay xaqataay parce que ngëm bi la ak wóolu bi la ngëm bi la ak wóolu gi la bu la nit xasee gëm wóolu la loo ko wax def ko koo xam ne yaa jiite jàngu bi nga ne militaire yi bésu tey bi euh, may naa leen ko kenn ku nekk seetal sa coro ci dëkk bi wala kenn ku nekk na wàcc jékk bu kenn terew sa moroom euh, tey bésu yàlla la dem leen ngeen mbaraani dara nekku ci militaire yëpp daal di wàcc ci dëkk bi xale yu jigéen ñi kenn terewul boppam ci benn militaire militaire itam ku ñu gis a ànd moom dëkk bi yëpp daal di ëmbandoo benn yoon moom musiwam daal di làqatu noo mën a naanee lu weex lii li ko gën a weex moo tax dégg nañu wolof bi hmm. waaw yow noo def benn naan lu weex li li ko gën a weex moo tax nga naan ko ni waa keneen weex na waaye sibiru moo ko gën a weex kon nag boo sibiru foog nga naan ni waa keneen waaw waaw benn mbon ci moom ak mbon yi ñëpp mu daal di làq mbonam moom kon cosaan bi la lii moo andi Saint-Valentin ñu naan mooy feete amoureuse yi déedéet feetu njaalokat yi la bu bés boobu jotee ku ko feetu rek xamal ne am nga bàkkaati kunjaalo te Cheikh Omar Fuuti Taal wax na radiyallaahu taala di borom rimaax kenn du laam-laam le kan mooy Cheikh Omar Fuuti Taal ci nitam yàlla ci li mu liggéey kooku lu wax fayee ko bor nee na benn toqantu góor ci awray jigéen bu dul soxnaam mu ne téyel ne sidditi nit ni mu toll sidd bu nekk malayka mi ngi koy yëngal téyel ne rey nga malayka boobal ku rey cuujab jàmbur foo jëm malayka bi yàlla nga rey ko bu feet bi dikkee ñu jënd ay carte postale nga yónnee jënd ay mbubb noir noir rouge yónnee jënd ay chocolat yónnee kon yaa ngi def ak solidarité njaalokat yi téyel ne fu ñu leen bindal benn ñu bindal la benn